Euh, ñëw leen ci Dakar Géejawaay arrêt Double Less incha allahu rabbi ngeen laajte ka sëriñ Mouhamad Lamine Bara Fall boo leen fa ñëwee danañ ci jàpp may leen ci ay ñaan ba dañ wala ñu ci numéro bii di 77 169 45 45.